asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 11 décembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag moo xam sunu làmb la record ba ci yëglekaay bii nga xam ne moo di l'observateur fu ci nekk rek tey ay xibaaru làmb xëy na ñëw fa bu dee fi nga xam ne nag moo di sunu làmb la moom xëy di wax mooy président wu Rock Énergie muy Xaadim Gajaga Xaadim Gajaga daal nee na ci diir bu gàtt diggante Modou ak ki nga xam ne nii moo di Ama Baldé moom taxaw dina ko def waxi Xaadim Gajaga de ci yëglekaay bii du sunu làmb moom nag mooy président wu Rock ba nga xam ne fële Modou Lo nekk di bëre moom daal xam ne ne ki nga xam ne nii daal daal Modou mbërëm moom saison bii moom du ci semaine de maanaam daal ak lu mën a xew moom Modou dana takk ngem bëre te itam nag mu ngi préparé combat am Khadim Gadiaga moo xëy di wax lool kon ñi doon xaar combat ama ak ki nga xam ne moo di Modou daal bu leen yeboo moom ngeen sax tàccu wala ngeen tàqamtiku ndax Khadim Gadiaga ne na ci lu gàtt gàtt diir bu gàtt des na taxawal combat boobu kenn koo xam ne ni moom écrit ba mu nekkoon fa la xëy di wax mooy Jibril Kanji di entraîneur di yëngu ci wàllum boxe Kanji na xëy di wax loolu nee na tamit li leer ba leer amul lenn loo xam ne lu ko léewoon la ak waa Fass ci wàllum kayit wala lu ñu xaatim mu di contrat mu war ko séq ak ñoom loolu mooy wax ki nga xam ne ni moom moo di kanji ñëw na ci Gris Bordeaux tamit jàpp na ne daal li leer ba leer moom jàpp na ne kii nga xam ne nii daal moo di Gris moom làmb ji moo ci dàq xeex kanji moo wax loolu ne na bëre dóor moom ku koy def rek Gris doo moo la dàq xeex loolu waxi ki nga xam ne nii moo di Jibril kanji la ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb ba tey ñëw na di wax loo xam ne nii daal wala di conseil ki nga xam ne nii day moom moo di Ama balde kanji daal lam ko xamal ne na ko day war naa defaraat xeexam bu baax a baax ndax nag li leer ba leeraat problème mu garde moom am ci box ndax des fois buy xeexi maanaam dal day yóbbu kanam gi du teb benn garde ngir xeex ba jaaru yoon moo tax mu koy digal ngir mu teg ay mbiram ci aw yoon écrit ba mu nekkoon ba tey waxaat na ca nee na li leer ba leer faas moom entente maanaam waxtaan moo fa amatul kànji moo xëy di wax lool mu mel ni kii nag wax jooja daal bu ñu demee ci record moom daa mel ni tebbeeku na ba set wecc ndax nag kii nga xam ne nii day moo di Abu nduur ci ak xalimaam moo demoon écrit Fass Abu Ndour nag yëpp ndax nag ay feuille kayit la ñu génne teg ay sart yoo xam ne ku ko jéggi dañuy rëq sa ndig yaa xam koo mën a doon maanaam daal Abbas ne na li leer ba leer boo gisee réunion bi tardé sax ne na daal nekkul woon ci réew mi waaye ba mu ñibbisee moom ca la def affaire bi maanaam fi mu nekk nii ku ci ne jox nañ la ak feuille mu di loo xam ne nii da koy yóbbu sa kër liir ko yaag say mbokk 48 heures lañ la may nga xool la ca ne bu la arrangé nga signé ko ne ci écrit bi boo ko defulee nag wala boo ko ba ne ne moom boo xëtee sart ya ne na yéen journal si bu keroog koy njëkk a ndax bu keroog ku ko def dañ lay teg ci aw yoon loolu mooy waxi Abbas Ndoy mu mel ni ki daal kon Fass fi mu nekk nii moom seenu écrit lañ bëgg a ci seen ay loxo teg ko ci aw yoon ba nga xam ne ku fa wàcc yoon ñu gàll la ay kàcciri dóor la ay yar ba mu leer nañ wala sax boog ñu génn la ca li nga xam ne moo di écrit ba moo tax nag ba tey mu mel ni kon démb daal kenn manqué wu koon moo xam président ba Abbas Ndoy la ñoom Bouba Thiaw Malick Guèye Tafa Guèye Ibrahima Mbaye ak kenn desul ñépp a ñëwoon dem ak mbër ya Gris Bordeaux Papa Sow ñoom Serigne Ndiaye numéro 2 Gris de ñépp a fa nekkoon mu mel ni ki kon ñoom jógin bu bees daal lañ bëgg a jóg ren tee ko seenub écrit ñoom waa écrit Fass kenn koo xam ne nii moom na mu jóge woon ba nit ñi am ci moom yaakaar daa mel ni daal amateurs yi seen yaakaar tebbaku na ci moom wala fañ ko doon xaar dikku fa muy Sa Thiès du samay wax nag l'observateur moo xëy tey di wax loolu moo tax nag yëglekaay bi ne examen yi ko dese day xanaa boog bu ëma seen ci moom waaye keneen koo xam ne nii moom bu dee examen ci moom itam poson la ci moom moo di rëg-rëg l'observateur na ne moom mu laal rëg-rëg moom Sa Thiès du wóor ci moom yëglikaay bi moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom la mu laal tuutee tere rek mu yeggale ko lu ndaw a ndaw moo ko ca dese mooy Sam Mbaye Sam Production mu mel ni ki Sam daal li leer ba leer diggante moo Dia ak Ahmed Dem parce que combat ba moom taxawal na ko ba mu yegg bareetul ñoo xam ne moom bëre la ñuy waaj diggante Abu Ñaase ak ki nga xam ne Mori Tafa Guèye 2 Ahmed Konaté nag moom mu ngay wax ca combat ba na Abu Ñaase day moom mooy favori bi li leer ba leer mooy favori wu Tafa ay miiru sàmb moom ca Pape Ndoye ak lay wax nee na Pape Ndoye moo gën a waaye Jackson day moo ëpp audace loolu mooy wax ki nga xam ne moo di ay miiru sàmb ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb leneen loo xam ne tamit dañ koy dem fekk ko ci yëglikaay bi mooy ki nga xam ne nag mooy Doudou saane am ñu naan ko xaddaafi bu joof yor mu mel ni ki moom am na combat wu bëree dóor ka fa jaar nag mooy Ama Events mu mel ni digganteem ak ki nga xam ne moo di ko sim 2 daal loolu moom leer na waaye li leer ba leer lambi simple ji moom boo bëggee dégg dëgg daal daa mel ni ki xam ne ni day moo di paka la garam bañik lu mu ñàkk ci bi moo ko ko xañ moom paka la ordinateur moom daa mel ni fi mu nekk nii bu dee ci àll bi la lam fay def di fa teg ndawal moom ndakaaru mënu ko fee def saa yu fi ñëwee daal day wex xatt xatt xatt ci moom li leer ba leer daal looloo am tey waaye li leer ba leer tey la mercredi li leer ba leer tey la 11 décembre li leer ba leer 2019 la ñu ne tey nag yaakaar naa kuy wax happy birthday to you nan ko dajale def ko som bu rëy rëy rëy jébbal ko président Macky sal mi nga xam ne nag moo jiite réew mi yaakaar naa nag li leer ba leer daal président buy anniversaire moom defe naa suñuy anniversaire yéen ñi am anniversaire tey ñëpp na ñëpp dajale seen yooyu ak ñi paasele ak ñi dikk léegul jox ko ko mooy président Macky Sall ne ko président happy birthday to you bés bu dellu si moo neex joyeux anniversaire guddalu fan te sa deuxième mandat bi projet yi yàlla na yegg ba sénégalais yi jariñoo ko moo xam teer la moo xam BRT la moo xam lu mu ci mën a doon na lépp yegg maar ndax nag maam Abdou da baax ko waxoon boo duggee ci gaal bul ñaan sab ëmb mucc ñaanal yàlla gaal ga mucc su muccee maar sab ëmb mucc nga mucc jàmm ne ñooy kon yàlla na président mucc su mu teeñu mucc mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon ci revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen ci jàngatu journaux yi Babacar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Coumba Fall di leen nuyu di nuyu internet yi Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a sa àddina bi rek di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom. waaw kay dafa mel ni léegi nag carte gi leer na nag Khadim Gadiaga président écurie Rock Énergie wax na tey si sunu laam di si ay quelques fan wala ay quelques heures rek combat Ama Baldé ak Modou Lo dina taxaw incha allah. ah waaw loolu de ci kàddu ki mu jógee yaakaar naa ne du nit ku ndaw waaw ca biir parcelle waaye rawatina écurie ba nga xam ne moo Rock Énergie ndax kuñ ne yaa jiite écurie bi yaay président bi kon defe naa ne. mbër ma moom lay xew ca moom xam nga ko comme moom bu xëyee ne combat bi ay fan yu néew wala ay waxtu dina taxaw ah, la ma waxoon laay waxaat rek nañu yónni yàgg parce que combat bi moom defe naa ay weer a ngi ñi ñi di si commentaire dina taxaw du taxaw fay nañ lii fayuñu lii kii bëgg na kii bëggul kon nag bu ñu yegsee ba fii tey moom mi nga xam ne moom mooy Modou Lo mu ne dina taxaw ci xan fan yu néew dañuy yónni yàgg waaye itam du tere tamit ñu bàyyi suñu xel Pikine parce que combat bi ñaara ko séq Modou Lo kese bëriwul Ama lay bëreel dañoo xamul nag ndax waa kër Ama loolu xaarim nga jag wax est ce que ñoom ñoo ca bokk d'accord wa ak promoteur ba wala waaye li ma la wax rek lu xam daa Babacar journal bi aussi mu ngi xamal kii di Djibril Kane yi nga xam ñëpp ko xam si écurie Fass muy entraîneur de boxe moom daal bàyyi na expliqué na si journal bi lan moo tax mu bàyyi ne la biir Fass amatul déggoo te nee na amoon benn contrat boo xam ne moo doxoon diggante moom ak moom ak dirigeant écurie Fass moom pour moom li ma gis daal mooy Gris Bordeaux moo dàq bëre si mu dàq xeex si si làmb ji. waa Kane ji mu ne bàyyi na écurie Fass maanaam te contrat liiwu kon ko ak ñoom te déggoo amu fa. Gris Bordeaux moo daax a xeex li ma si mën a jàngate daal mooy ànd boo gis bu ne dama yaakaar ne am na fu muy commencé am na fu muy yem contrat sa dina la lii ak nit ki ngeen dem ba benn moment contrat ba ngeen xam ne fii la mën a yem ngeen yemale ko fa yaa ngi dégg loolu waaye li ma ci wax xam wax daal mooy relation humaine bi nañ koy privilégier chaque jour maanaam diggante nit ak nit dafa ëpp doole xaalis bu ñu lay fay dafa ëpp doole kayit bu ñu lay xaatimloo mais relation respecte doomu aadama parce que des fois di di bokk fu ngeen di liggéey wala ngeen bokk écrit wala ngeen bokku réew wala ngeen bokk nàngam nday kumba da ngeen dem ba am ay relation yoo xam ne nii bu ma feebaree nga nemmeeku ma su ma nee ci ay xat-xat nga nemmeeku ma su ma nee ci bisu bànneex nga ñëw partagé ko ak man loolu dafa ëpp doole lépp te loolu ci la jaamu yàlla ne ci la yàlla yi bëggee ci ñun kon daal li may wax mooy donte bàyyi na écrit ba yaakaar naa ne def na fa ay at di entraîné mbër ya defe naa am na ak ñoom ay relation yoo xam ne nii yu sincère la mën na sàmm lool terewul nag mu dem defaat leneen fa mu ko bëgg a te du tere li war a rafet rafet quant à gi dàq xeex nag loolu tamit moom moo ko wax moom moo ko doon entraîné borom xam-xam la ci wàllum box xam na box parce que yaakaar naa nekku ci ku ndaw am na ci ay médailles kon bu nee giree dàq xeex xëy na am na fu mu ko teg moom mi ko wax. jeune aussi mu ngi xamal kii ne promoteur Sambay Fall mi ngi waaye taxawal combat Modja ak Amed waaw ya dañ ah ko naan yàlla na ko réussir rek parce que Samba xale la boo xam ne nii jeune la nekk sénégalais xam nga di yëngutu ci développement réew mi parce que développement réew mi mooy ngay liggéey sa liggéey ba pare ñëwaat nag di promouvoir làmb di produire ay combat di fay ay xale ñuy bëre defe naa loolu yokkute la te koo ci fay la nga fay dina ci dina ko amal njariñ kon yaakaar naa dañ koy ñaan rek combat boobu moom tamit yàlla na ko réussir te it combat bu jaadoo jaado parce que Modou Dia yaakaar naa ne ku ne gis na fi mu nekk nii ci lance bi mu nekk ak fi muy jóge ci ay combat ak ni muy daane Ahmed dem tamit mbër mu mag la donte xëy na xaw na am benn retard sax mais ci champion yu mag yi la ndax yaakaar naa ne bu ñu xoolee rek moo avancé ñoom Modou Dia ñooñu ci wàllum sax làmb ci maanaam ni mu leen jëkkee ci làmb waaye nag làmb olof da koy wax du ak maas dabante la suñ jógee na suñu nañ dem fi nga xam ne mooy record record dafa doxantu euh, nga xam ne mooy écurie Fass seen entraînement am euh, buñ fa demee nag dem euh, ténor yëpp ñu ngi fa woon Papa Sow mi ngi fa woon Gris Bordeaux Serigne Ndiaye numéro ñoom ñëpp ñu ngi fa woon fekk nañ fa tamit président écurie bi muy Abbas Nooy Abbas Nooy nag moom comme ni ko journal bi titre rek sifflé na fin récréation maanaam caaxaan jeex na si biir écurie bi dafa am ay charte ñu fa teg képp koo xam ne respecté woo ko nee na yi ñoom nooy seen ay ñoom nooy ñoom nooy xam ne ñooy avocat yi ñoom ñoom nooy avocat yi ñoom ne journaliste dañ ko gisal seen bopp képp kun dàq rek xamal ni ñoom noo respecté wul charte yi te feuille tamit jox na leen ko pour nu lire ko dem seen kër ils ont deux jours wala ñetti fan pour liir ko signé ko xaatim ne d'accord nañu charte li ñu teg yëpp si biir écurie bi waaw loolu mooy que ne rek li ma waxoon sànq rek lu mu mën a doon lu mu mën a doon si àddina lu ne buñ ko tegul ci aw yoon yàqute lay jur maanaam anarchie loolu nag xëy na écurie Fass coow li bëri na at yii ci écurie ni mu taxawee déggoo amu fa nangam sangam kii def mbër mi respecté wul li mbër mi respecté wul li entraîneur bi respecté wul li loolu na xëy ne dañoo dem ba gis ne nag lii dafa war a jeex kon ñoom kilifa Abbas ak ñamu àndal ñu ne kon day jeex ci lu ñu gisee ci record kanikat bindal nañ leen ay xaatim nañ ay kayit yoo xam ne ku ci ne mbër mu fa jox nañ la benn la yóbbu ko sa kër nga xool ko ak sa ay mbokk ak ña la wër nga gis la ca ne bu la doyee nga signé ko ñëw at nekk ci charte écrit bi soo ko signé nag boo nekk ci charte bi boo wàccee yoon bu këroogee yar bi day dal sa kaw ah loolu itam dama naan sa très normal mbir boo bëggee mu dox moom faw nga utal ko ay sart tëddal ko ci aw yoon rawatina foo xam ne nii tey écrit la ay mbër ne fa di bëre parce que tamit dafa am loo xam ne nii il faut mbëri nangu di ko delloo écrit yi parce que bi ngay ñëw ci écrit bi yow ndey kumba na na euh, maanaam xamuñu la parce que noonu laa ko mën a waxee kenn xamula woon nga ñëw ci écrit bi écrit bi jox lay entraîneur ñu lay tàggat di sonn ci yow jox la mënaan si mu lay wutal combat ba nga xëy tey nekk quelqu'un boo xam ne nii personnalité nga si dëkk bi defe naa li nga li la war mooy ak la nga war a amee écrit booba mooy nga delloo ko njukkal di fa ñëw à l'heure di respecter lañu lay wax di encadrer ña nga xam ne nii yaa leen d'avancer loolu defe naa mooy li nga xam ne nii mooy li war a am parce que tamit dafa am loo xam ne nii il ñu ciy bàyyi xel ndey ma faal am xaalis bu mu la tax a bañ a ñàkk am kilifa. nit boo yoroon ay milliards nangul ñu ilifa ñu ilif la sëñ Moussa Ka da koo waxoon ci aw wooy am kilifa mooy li am solo boo ko amee da ngay am solo mais soo ko amul moom doo doon ko am solo kon yàlla ñu yàlla may kilifa. loolu am na solo Babacar suñu jógee nag fi nga xam ne mooy record nañuy dem si observateur observateur daal moom lu mu gis daal mooy Sa Thiès euh, di rakk Balla Gaye mi ngi woon si ay tànk magam muy Balla Gaye mi ngi amoon na 15 euh, combats 13 victoires mais euh, daan ko boo ñaan daan daal dafa freiné carrière moo tax nee ñu. comme la ko wolof ñaar di waxee rek xamal xalam demoon na bay neex buum ba dog waaw xalam dem bay neex buum nga dagg xanaa ñu jëndaate ay buum fooraat rek a fay na de parce que itam looloo ko sport a ànd ki ko daan nawleem la muy Sa muy booy Niang parce que Boy Niang mbër la te itam Sa Thiès yaakaar naa ne nekk na mbër moo xam ne bi mu duggee si làmb yàggul waaye nag wane na ay preuve am dafa fekk ne nag sport dafa am défaite am match am victoire yaa ngi dégg loolu pour man xëy na mën na ko freiner mais jaakaar naa maru ko mën a freiner à 100 pour cent parce que li tax mooy nawleem moo ko daan yaa ngi dégg Balla Gaye magam ci diggu carrière bi muy neex la dëgg Issa Pouye daan na ko mais anamu tey ji jógaat na li am solo daal mooy yow mi ñu daan nga am yaa ngi dégg mental bu baax xam ne ci sport nga ne jàppee ko noonu dem liggéeyaat redoubler d'effort pour que boo ñëwaatee nga def lu sut la nga defoon yaakaar naa Sa Thiès fi mu nekk nii foofu la war a taxawee kantaan nag combat yi nga xam ne ni moom la yëglikaay bi gis bu dee entre Eumeu Sène la loolu dama naan man na bañ a yomb l'observateur a ko wax nag. xëy na tamit nag moytu ki nga xam ne mooy rëg-rëg. waaw moytu rëg-rëg ah waaw mooy mais est-ce Sa Thiès war naa moytu rëg-rëg muy mbër muy mbër ngay xale muy xale ngay entraîné ah bu ko mooy bu dee mënta daan rëg-rëg ci làmb day est ce que kon làmbam dina doo dooti na neex ndax rëg-rëg ci làmb ji la ne di bi dina jafe de. muy doy waar Babacar nu jeexal nag ak Leewtoo TV Leewtoo TV démb doxantu woon nañu ma fi nga xam ne mooy Géejawaay si open press Jackson moom nag artu na ki nga xam ne mooy Pape Ndoye Babacar. waaw moom artu na ko artu yu metti sax parce que jàpp na ne moom doy affaire de crifaas ak Géejawaay ak nangam moom ne na dafa mën a bëri te dàq koo bëri. te li leer ba leer moom digg na ko loo xam ne daal samedi bu ñu ca yeggee moom Pape Ndoye moom Jackson nee na da ko naral wan ba bëccëg moom moo koy gis jàkk jaxrat wallaay loolu la wax de Babacar si kàddu yooyu leen tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah balaa boobu may nuyu sama yaay mère Sow nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Astane déjà Brahma Cheikh Khadija Diallo di nuyu ki nga xam ne mooy Abdou Gueye euh, papa Sita Baye Fallou Diamagan depuis États-Unis koy nuyu di ko ziar di ki nga xam ne mooy Asek ak ki nga ak chérim Khoudia Seck depuis euh, depuis Italie nañ koy nuyu nuyu samay doom maam Diarra Penda Fallou Rokaya di nuyu ki nga xam ni mooy euh, bébé Moussa aussi maa ngi koy nuyu. nuyu ki nga xam ne mooy Aïda Diouf euh, ak euh, Aïcha Faye madame Dia ni aussi Bomba Diézé yaa ngi si biir. waaw man nuyu naa képp koo xam ne daal yaa ngi suivre Leewtoo TV à travers le monde ak foo mën ne Ngagne Sow kenn tukki ca États-Unis d'Amérique du ko fàtte mention spéciale Abdoulaye Mbaye Atlanta moom tam maa ngi koy béggee mais di nuyu ki nga xam ne mooy Issa Ndiaye ak Seynabou Diouf Issa Ndiaye Kormada depuis Maris Dakar di nekkal muy Mass Sène di doomu ak yaay bu baax baax mais tamit di nuyu ki ne mooy Saliou Ciss di ko wax ne maa gis message bi maa ngi koy béggee l'international na drapeau waaw non Saliou Ciss joueur laa wax quoi Saliou Ciss Saliou moo am drapeau le 28 ak Bamba Faye loolu defe naa drapeau Babacar la ndax ku la safooti rek faale ko te ku ne dégg na ni muy def ak Babacar ci Zik FM kon Saliou Khoulé drapeau boobu na ko ñëpp waaj mais tonton Diaw tamit di ko nuyu bu baax a baax waa di nuyu ki nga xam ne bi tamit mooy DC bi Thialis Diaw borom ADN laay wax waaye tamit dama ko wax tëyewoon sànq rek ak happy birthday to you bi du mën a ñàkk ndax président Macky Sall buy feete anniversaire yaakaar naa ne ñu ñu d ay sénégalais muy suñu njiital réew dañ ko ñaanal rek anniversaire bi yàlla na ko jik mu yàgg koo feete ay ati ati at at bu ñëw dàq ba paase woon te li ma waxoon sànq rek muy njàng mi muy wér-gu-yaram gi muy tali yi muy TER bi ak BRT bi lépp yàlla na ko réussir ci mandaam bi nga xam ne moom la ñu laaj bañ jox ko ko pour mu mën a nekk suñu réussite di ko wax daal happy birthday to you sunu yaay Marième Faye Sall comme ni nga ko gisee rek Babacar na yàlla waaye tey sol na euh, PSG ñu ngi koy ñaanal aussi victoire am si Galatasaray tey si ngoon ba suba incha